baax a baax ci topp bi ngeen topp ah, tey teewlu saa su nekk suñu ay xibaar tey nag lu ñeel actualité bi ah, bokk na ci ab situation bu xëyee foofee ca ah, ngox ñu daal di koy seeni rek fi nga xamante ni moom moo di Facebook bu Ngoone Saalu moom mi nga xamante ni mooy joxe information bi ma ngay xam la ni foofee ca Ngor ci benn appartement bu nekk foofee vers trois heures du matin dañ fa daal di fàtte bakkanu benn soxna ba sax daal nay fësal wala nataalu euh, bile appartement ñoo gis te suuf ne am na ab deret yu bare bare bari boo xamante ni ma ngi fay daal di wala ngaan bu ñu décrire euh, li nga xamante ni moom moo di appartement bi gis nañ ni buntu ba ay carreaux noirs lañ fa daal di amal waaye nag euh, ñoo ngi seen rek ci ab vitre li nga xamante ni moom moo di ab lal bu jaxasoo jusqu'à présent nag mënuñu ni lan moo fa daal di woon xew wala kan moo daal di def li nga xamante ni moom moo di ñaawteef bi ku ko jege la ku ko jegewul la contentieux la ak lépp lu mu mënti doon loolee mënuñu guñ cee sori mais pour le moment li ñu leer rek mooy que ni faat na bakkanam ca li nga xamante ni moo di appartement ba vers trois ko daal amal ba tey Ngoné Saliou mi yëgle information bi mi nga xam leen ni que caméra de surveillance yu nekkoon foofee sax ñoo daal di trahir ki nga xamante ni moom moo di defkatu ñaawteef bi ba moytuwul jamono ji bis buñ ko saytoo ba noppi rek dinañu daal di am li nga xamante ni moom moo dina taalam ca na mu gën a gaawee mesure de prudence bi nga xamante ni ñoo koy koy wax naan nañu gën a renforcer sécurité yi gis nañu nag jamono ji meurtre yu bare bare bare yoo xamante ni mi ngi am ci réew mi daanaka rek ah, ñoo ngi lay daal di fekk ba sa biir kër ah, daal di fàtte sa bakkan ci anam bu ñaaw lool di mën nañu jël exemple ah, ci kaawoo ki nga xamante ni moo fi bàyyeekoo woon di Aziz Dabala ak xaritam boobee di waal yi ñoom ñaax ñoo ngi leen fekk ba seen biir appartement kenn ki ñu fay fàtte bakkanam ca néeg ba keneen ki ñu daal di fàtte kanam ca waañ ba ba tax na askan bi laaj bi doon samp mooy fan lan nit mën a dawee rek ba daal di a mucc bu fekkente ni boo nekkee sa biir kër nekkoo en sécurité nga tëju ba tëdd nekkoo en sécurité booy dox ci mbedd mi nekkoo en sécurité ak waxtu bu mu mënti doon dinañ la daal di agressé wala sax ñu daal di lay ah, fexeel nan la ñuy def rek ba daal di mucc ci defkatu ñaawteef fii ndax jamono jii nii mbir ma ma ngay gën a takkarnaase ah, solution boo xalaat rek wàllum justice daal nañ koy tekk ngir mën a arrêté agression yu métti ak faat yi waaye ñenn xabtaloo la koy daal di waral rek mooy que ni ah, pour un oui pour un non dañu daal di gis nit dil ci paaka daal di faat bakkanu doomu aadama ah, ci anam yoo xamante ni ñaaw na loolu wala sax nak la gën a pire mooy que nga taxaw di weranteeg doomu aadama la ngeen di werante matul sax 1000 francs ñu daal di cay faatee seen pa bakkan ah, borom xam-xam yi la ñu jàpp rek mooy que ni nañu daal di tuur deret ndaxte am na ay jinne yu daal di defloo ñaawte fu nit ñi waaye ñeneen ñi la ñu jàpp rek mooy que ni jukko yu bon dong moom moo leen daal di jàpp waaye bu ñu bàyyi woon bor xol ak gaaw a jamaate kon tey ji mëtur yu bari dina daal di bàyyee ko ci réew mi leneen lu la kan moo daal di faat bakkanam ak nan la ko daal di dinañ ci dellu si